jërëjëf waaw fii nag di daaray kaamil di diwal Seexul Xadiim euh, sëñ Abdou Lahad Mbacké di ñetteelu xalifa Serigne Touba moo ko amaloon euh, commencé woon liggéey bi ci atam 1975 mu yegg ci 1977 euh, taarix bi nag li taxoon mu def ko leen dong la woon pour wane Serigne Touba ci xam-xam ndax bu ko laajee lu tax nga def ko daf ne danañ dem ba jëmi jamono dañ ko joti doomu Serigne Touba wala ko mu defar su ko defee jëlu ci am jàngale kon loolu bokkoon ci li tax mu créé bi wala tamit. mu nekk bibliothèque boo xamante ni nag bu diis la ci côté yu baree baree bare ci côté xam-xam ndax Sëñ Abdu dafa nekkoon koo xamante ni ku amoon xam-xam la ku yaatu woon xam-xam ci lu baree baree bare gis-gisam léegi nag bi mu waree def la bibliothèque bi wut ay yoo xamante ni wala wut ñoo xamante ni seen xam-xam na ci wàllum tabax bibliothèque mu laaj leen ñu xam ko defal ko plan mu ñëw indi plan boobu taxawal ci bibliothèque bi nga xamante ni lu baree bari ci xeetu xam yi indi na ko jërëjëf bibliothèque bi li fi nekk ci xam-xam bari na ndax bibliothèque bu ñu xaajee ñetti saal la li fi nekk ci côté xam-xam ñetti saal la waaye saal bu ne am na lu fa nekk fànn bu fa nekk saal bu njëkk bi lépp lu jëm ci alquran ji nga xamante ni loxo lañ ko bindee ci sëtu Sëriñ Tuubaa yi taalibe yi dongo yi li nga xamante ni bindu nañ seen loxo loolu suñu iblaat jël mool ko bi ko moolee mu nekk ay lim yu baree baree bari mu exposé ko ci saal 1 nga xamante ni mbooleem xeetu mbind yi ci Touba Jurbel yeneen dëkk yi xeetu mbind yi nga xamante ni dañ koy bind ci alquran ñu ngi ci côté bu ñu foofu ci salle 1 nga xamante ne loolu taxam def ko mooy wane woon sëñ Tuubaa ak alquran ndax sëñ Tuubaa moo woon man la kan ni quran tam li kalfedum loolu la bëggoon a ko fii sëñ Tuubaa adab laa jëmu fi de wala jëmu sama trésor mooy alquran ak xadis ak ay teggin loolu sëñ Abdulaay ñëw jëf ko ci barab bi nga xamante ni mooy daara kaamil bu ñëwee ci salle 1 boobu nga xamante ni lépp alquran nga xam bind yëpp a ngi foofu am na ci beneen sa bu mu tuddee salle 2 mu tuddee ko mbooleem li Sëñ Tuubaa taalif ci téere xam-xam yi yi nga xamante ne day jàngale sa diine di aj ci tawxiid wala aj ci fiq wala tasawuf wala grammaire mboolem xeetu xam-xam yooyu Sëñ Abdou Lahad da ko jël dajale ko ci benn téere benn diwaan nga xamante ne boo soxlaa tawxiid li jàngale kat mooy yàlla ubbil téere bu fekk ko fa ci téere yi Sëñ Tuubaa yi ñu def ci yu bëree bëri nga fee soxlaa fiq pratique islam droit droit musulman am ci téere yooyu soufisme grammaire yi ngi foofu ak ay téere yu bëri foofu ci wàllu tasawuf nga dem ci xasida yi mu def ci liggéey bu rëy rëy liggéey boo xamante ni eh, mucc na ayib ndax dafa jël xasida yi eh, par eh, thème thème bu ne mu classé ko ci benn téere comme lu mel ni diwaan bi ñuy wax diwaan am daa xamante ni ay tagg la yoo xamante ni sëñ Tuubaa kon tagg yoon sallallahu alayhi wasallam sëñ bi la du ko créé ab benn diwaan mu daa xayril mursalin xamante ni mboolem tagg yi sëñ Tuubaa tagg yoon sallallahu alayhi wasallam ngi diwaan boobu mu am beneen téere bu ñu tuddee silkul jawaari fi ab diwaan bu mag la boo xamante ni bu am solo ci dundu dundu adduna ak dundu àllaaxira ak euh, comportement yi nga war am ci àdduna ak yu baree baree bari ci melokaan mu def ko ci téere boobu nga xamante ne boo ko ubbee mboolem li jëriñ ci si yow ci àdduna mi ngi ci téere boobu am beneen diwaan bu ñu tuddee diwaanu salaatu ala nabi mooy diwaan boo xamante Cheikh euh, Abdoulaye Sëriñ Tuubaa da koo def ci def ci julli ci yonent bi Sëriñ Abdoulaye da koo jël def ko ci benn diwaan nga xamante ne boo soxlaa jees ba mu xaddima ak façon yi mel noonu soo ko ubbee fekk ko ci diwaan boobu mu am benn diwaan bu mu tuddee diwaanu def liggéey bu yéeme jël turu yonente yooyu la jël di ko am solo yoo xam ne ci téer téer boobu di fulkul quraan ya mooy diwaan boo xamante mbooleem xeetu Euh, mbindin yi nga xam ne Sëriñ Tuubaa def na ko ci alxuraan jël alxuraan par alphabet lettre bu ne mu def ko benn poème ba alxuraan jeex jël ay aaya maanaam tënk ko ci alxuraan ci ci xasida yu am solo mi ngi ci diwaan boobu ilmin wala xar jaakum kaana xam façon xasida yooyu mi ngi ci diwaan boobu ak diwaan boo xam mu xayyada bi xay ayat alquran yoo xam ne ko tënk ci lu aaya alquran ci yeneen i téere waxi borom xam-xam yi mu jël beneen diwaan boo xam ne nurul daareen la tudd nga xamante ni façon xasida yi nurul ay nurul daareen yi suñu daal di koo jël dajale ko ci benn téere nga xam boo ko su ubbee fekk ko fi kon loolu mooy aju ci wàllu xasida yi mu jëm ci nekk li jëm ci wàllum euh, njàngalem sëñ Tuubaa leetar yi nga xamante ne moom lañ jokkalante ak mag ñi question yi nga ko daan laaj réponse yi sëñ Abdou Lahad jël def ko xam ay leetar la woon sëñ ba dafa jël leetar yooyu dajale ko def ko benn téere mu nekk majmuha nga xamante ne mboolem seex yi mu seexal ñu si bari sëñ Tuubaa am na leen ay dénkaan yu mu leen dénkoon mi ci téere mi ngi ci téere boobu di majmuha wala ay laaj yuñ ko luñ ko yu ñu laajoon sëñ bi rek laaj euh, euh, question yi ak réponse yi ñu ci téere boobu ak ay conseil yoo xam sëñ Tuubaa moo ko daan joxe mag ñi ak façon njàngaleen mi ngi ci téere di Majmua kon mbooleem njàngaleem yi nga xamante daan na waxoon technique yi yow la ma koy jokkalante ñu ci Majmua bi ak ay témoignages yoo xamante naari Mauritanie ñoo ko defoon ci sëñ euh, tubaab yi bëggoon ko Mauritanie pour mu doon am complexe ndax bu demee di jaay xam-xam bu bari naaree ko xam-xam bu demee di jaay làkk arab man arab nañ ko dàq arab bu dee di récapitulé yàlla dogal nag ñaari far yëpp gis sëñ Tuubaa xam-xam bu sell ak ragal yàlla am ñu far jébbalu ci moom ba naar yooyu ñoo dajaloo defal ko ab benn a mag ñu tuddee ko yooyu woy nañ ko diwaan bu mu ngi fii ak ko am na ay woy ñu woy sëñ Tuubaa mi ngi ci téere boobu kon fii mbooleem loo soxla ci sëñ Tuubaa li ñu bind wala lu ñu ko waxal wala lu ñu ko téemoon boo dëkk ci salle deux bi nga ko fekk mu am beneen salle bi ñu tuddee salle culture générale muy salle trois mboolem di jëm ci wàllum culture xam ne sëñ gis-gisam dafa sori woon bi mu paree ci euh, xaside yi dafa léegi jëli ci biti li nga xamante ne boroom xam-xam mag yi nekk dañ ci biti ay Algérie ay Tunisie ay Maroc ay Égypte ay Arabie Saoudite mboolem boroom xam-xam lañ bind ci euh, xam lu baree bari du ko indi maanaam mu def ko ay fànn nag lu jëm ci wàllum xadis euh, yonent sallallahu alayhi wasallam mu rawaat yëpp mu képp ku jël ay bépp xadis bu nekk ci yonent bi rek boo dëkk ci sàll ko fekk wala lu jëm ci traduction coran lu jëm tafsirul quran wala lu jëm ci science coran mbooleem xeeti xam-xam yooyu sëñ daal jéggaani na ko ci bitim réew indi ko fii ak lu jëm ci wàllum dirasat islamique étude islamique ak lu jëm ci philosophie islamique lu jëm ci logique indi na fi ay téere yu bari pour nit ñi bañ a jéggaani xam-xam toog fi ñu toog di am xam-xam te duñ génn ci réew mi lu jëm ci bibliographie Muhammad sallallahu alayhi wasallam mooy siira indi na fi lu bari lu bari ci droit musulman ci mazahib yëpp mazhab boo soxla ci wàllum fiqh ci wàllum masala indi na ko fi lu jëm ci wàllum euh, économique droit lu jëm ci wàllum eh, dictionnaire indi na fi ba ci wàllum scientifique mathématique agriculture médecine eh, mathématique lépp lu jëm ci wàllu xam-xam scientifique scientifique indi ba ci beaux-arts ci lu jëm ci wàllum togg sax indi na fi ay téere yu bari lu jëm ci histoire islamique histoire générale yu bëree bëri indi na ci ay téere ak géographie moo doon xeetu xam-xam yooyu mu ci saal boobu di saal Jules César kon yooyu ñooy li nga xamante ne mooy téere yi nekk ci biir Daaray Kaamil dañ mën ko jëriñoo ni ñu ko jëriñoo nag du question denc ko rek ndax di finance ci alal ju bari daf koo defoon ngir nit ñi mën koo jëriñoo ndax loolu moo doon objectif daara ci léegi nag am na salle bu mag buñ créé muy salle de lecture mboolem ku soxla ci téere yooyu boo dikkee salle bi defal na ko climatisé ko defal la nga xamante ne euh, macha allah ci côté nekkin ñu ci salle boobu nga xam te yi ñu wax yëpp boo duggee salle bu nga ko fekk leneen am na ci yeneen yoo xam ne gëstukat yi dañuy ñëw ñuy préparé seen thèse étudiants yi préparé seen thèse wala ñi nga xam ne dañuy bind ñëw di def yëpp du fi def suñ dañ koy indiwaat xam te ne mboolem étudiants yu bari bari li ñu bind ci thèse mouride wala ñu bind ko leneen dañ ko am na ñu def ci français yëpp suñu sàmbay suñu ablaat joxoon ndigal mu traduit en français boobu nit ñi yooyu it am na anglais am na yeneen langue yi ñu ko def boo duggee saal boobu ko fekk kon daal fii barabu xam-xam la barabu wàccuwaay la barab xam te lépp lu waay soxla ci xam-xam boo dikkee ko fekk ci daal fii nag waaw loolu li nga am ndax sëñ Abdou Lahad ba koy def dafa jéggaanu indi waaye fa mu ko jéggaanu indi fa téere yi fi nekk amut foofa amutut foofa ñoom bu ñu soxla dañuy ñëw Touba gëstu si waaye nag amul fii la ñuy toog loolu lu baree baree baree bari ñu ngi ñu ngi dañu fiy ñëw di ñëw di di toog am na ñoo xam ay seen wàll ay fiy ñëw du question rek maanaam seen waaye am na dañuy ñëw fii di seen am xam teesam ci Masaalikul Jinaan bi ci bi nga ko bindee pare indi na ko fi ci salle boobu salle lecture bi ay américain dañu fiy ñëw di jàng si di xam lu sëñ bi ay français dañ fiy ñëw ay tubaab naar yi dañ fiy ñëw mauritanien yeeg ñëpp dañ fiy ñëw di gëstu bi ndax fii ku fi ñëw moom fekk sa bopp sa bopp kon lépp ñu fi ñu fi ñëw ba pare am na yeneen xeet xam ñoom dañ ñëw pour am na ñoo xam dañ ñëw bi di xool li fi bari na lu fi nekk loo xamante ni luñ mën a jëriñoo lañ ndax bibliothèque bi li fi nekk bari na fu mu nekkul ndax bari ñoom dañuy ñëw danañ ci bibliothèque waaye ni ñu gisee organisation bi ak xeeti yi fi nekk ni amee valeur amul ci téere bibliothèque yi moo dañu fi ñëw bu baax a baax hmm. waaye di leen gërëm di leen sant bu baax di defar seen liggéey di ñaan yàlla suñu borom taxawu leen sàmm leen ndax yéen alal suñu tubaa ngeen ndax fi ngeen nekk rek mooy saare njàngalem suñu tubaa di ñaan yàlla suñu tubaa jox leen kattan bi ngeen ko gën a mën liggéey ci waag suñu tubaa wasalaamaaleykum wa rahmatullah